cinq nationalités ah. Ah, ah ouais. africaines bu di wax duñu duñu duñu duñu comprendre. xamul ci ci ci euh, lu bëri di daje ci entre africain di waxtaan ci euh, ci Afrique hmm, pour xool nu ñuy def ba Afrique moom boppam. mais mm-hmm. maa aussi mbayeen bi ndax moom yaakaar naa ne. <laughs> Euh, fu mu tardé rek <laughs> fu mu tardé rek moom euh, lekk boo ko fa tardé la mhm. nuyu pëlipëng bi mhm. ah, <laughs> hmm? eh, eh. defante kat bi barke Seydina man baax na eh, mais tudd mais tudd gu ma tur defante kat bi laay wax bu lay maane di nuyu Zeyna euh, fay nañ la jàmbaar ji ah. mm. fay nañ la elle est rouge ah allah ah. di nuyu aussi dafa takku ba dëgg bu jaxasekat bi Eh, Fatima Kelle maa ngi koy ziar bu baax. yow yow hmm? non da jaxasekat bi jibi mooy. moo nekk fii di cokkaas Mansour Cissé maas ne ko nga yërëm yërëm la. <laughs> nan ko yow yërëm dëgg waaye yërëm non xam nga euh, je pense que malentendu rek la. eh eh, eh, eh tollaguñu ah, ah, foofu maa ñu ma masse bi masse bi caméra yi ngeen dóorante fi dóorante masse bi xam nga xam nga arrêtel bàyyi ma dem ci beneen bopp. dañuy wekk mais xam nga xam nga ñi ñi ñi ñi bokk bi ñooy laxasooy goj. waaw waaw loolu yàgg na am ci plateau. Euh, que nit ñi bokkuñu xalaat. gis-gis jote waxtaan mais xam nga jote bi yëpp ci lan la ci Sénégal la loolu moo loolu moo mat a jàpp nag parce que nit ñi jote ci ay ay ay bu ñu toogee fii Sénégal la ñuy waxtaanee mais bu ñu jotee ci Sénégal loolu lu ko jar la et puis bon je crois que lu waroon am am na bon ñu ngi ciy jégalu aussi euh, kilifa yi parce que am na kilifa yu bëri dañ ma woo ne ma carrément wax dëgg yàlla du sa cër nga toog ci télé bi di xuloo te bi ñuy ñëwee fi ñun aussi xuloo indiwuñ fi ndax bi ñuy ñëwee gis nga maag moom ñu ngi mm. mm-hmm. am loo xamante ne buñ ko ñëpp bokkee aussi mm. bu ñu toogee ci plateau dañuy waxante dëgg lii nga xamante ne moom la ñu seq muy Sénégal buñ koy waxtaanee aussi euh, gis ne li nga wax d'accord ma ci damay taxaw ne la carrément li nga wax d'accord ma ci wala li nga wax du waaw loolu la nag wax dëgg yàlla loolu nag loolu nag c'est c'est c'est c'est venu nag sur le sur le feu de l'action loolu ñëw na aussi ku nekk wax sa morom wax dëgg yàlla kii affaire bi mooy refléter moo tax gis nga Sénégal mhm. dañ ñoo war a defar réconciliation nationale barki Seydina Mouhamed mu nekk journal entre journalistes mu nekk journaliste yeeg chroniqueur mu nekk askanu Sénégal parce que gis nga ñoom ñaar li ñu def fii euh, loolu noonu moom moo nekk di xew ci mbedd mi ci grand place yi di xew nu mu tërati ci bureau yi te parce que dafa am benn nu mu tërati euh, naka laa koy wane benn euh, frustration boo xamante ne moom moom la fi régime bi passé bàyyi te loolu nag barke yàlla moo fi des ba léegi te tant que loolu defu ñu réconciliation nationale du fi mës a jógee gis naa le président de la république Bassirou Diomaye saay suy wax rek mm. da ngay gis muy wax wax boo xamante ne pour boolewaat xol yi la mais pour boolewaat xol yi taxaw sa fële rek di ko wax foog ñu def benn acte symbolique boo xamante ne journalistes yi dinañ juboo seen biir chroniqueurs yi ak nu mu dellu ci loolu ñëpp ñuy liggéey ci milieu milieu audiovisuel bi tant que ñu ngi joxante lii rek ñi leen di déglu seen xol dina mun a conférer wa nu mu tëdd nan lañ koy waxee booloo waat merci. yow ah, yow démb wokkoo wokkoo ah. mais nag mais nag mais nag benn mbir dafa am. da wax nii. man je crois que bu ñuy juboo yëpp. Mm-hmm. nañu juboo ci dëgg aussi. Mm-hmm. parce que aussi euh, li am solo mooy. Euh, xam nga dafa am dafa am benn benn benn benn. ñëpp mënuñu jëm ci benn côté. waaw d' accord xam nga ñëpp ñëpp bokk xalaat ñëpp bokk ñu bokk xalaat mais ñun ay mm-hmm. frères lañu. les commentaires sont libres. ay frères lañu ak lu mën a xew. moom bu toogee di wax démb yàgg naa ko invité sama émission. Mm. li mu waxoon démb du ko musu musu ko wax. comprendre nga. <coughs> waaye yow tamit la nga ko wax tamit. nag moom laa lay wax xam nga. xam nga wax nga ne ko da ngay xam nga ñun bëgg bëgg Sénégal. Mm. bëgg Sénégal bi ma ko ngeen tegal moo tax aussi moo tax aussi euh, bu ñuy wax ci réew mi. Mm-hmm. Hmm, du ñu nangu manipulation. Mm-hmm. du ñu nangu nit aussi taxaw di wax loo xamante ne gëmuñu ko. bu ñu taxawee aussi Euh, di waxtaane Sénégal nga taxaw wax loo xamante ne jàpp naa ne nga ne dañu jël impôt bi di ko xeexee euh, l'opposition mm-hmm. moi je dis que c'est pas vrai parce que parce que mm-hmm. président Macky Sall recevoir na presse bi bi mu laata mu fi jógee mm-hmm. li leen promettre yaakaar naa ne daf leen tëgg windel daf leen nax en quelque sorte mm. et pour bi warul nekk le parent pauvre de la société tout le temps ñuy toog di sàkku ndimbal tout temps ñuy toog naan presse bi journaliste bu defee dara nañ ko euh, buñ ko topp nangam sangam nous sommes qui ñun ñi normalement dañu war a fay impôt kii teg table ci angle bi di jaay géej ak yéet ak suñu yaay yi mais chaque jour ngeen gis juuti ñëw fekk leen donte jaay ñu dara mais ñu jël ci ñoom cinq cent téeméer wala jël ci ñoom deux cent francs ñooñu ñu ngi fay impôt ñun suñuy salaire tout le temps dañ ciy dagg loo xamante ne mais ci impo ba la jëm au non de quoi les patrons de presse sont ne du ñu fay impôt loolu ñun ñuy dagg ñun muy dem ci impôt mais donc je pense que ñoom dañ ils doivent donner le bon exemple et rupture bu ñu koy wax aussi rupture dañ ko war a consommer. Mhm. fii ñu tollu Sénégal jamono jii dañu nekk ci tournant bu décisif yaakaar naa ne boo gisee li xew Mali avec le mouvement M5. Mhm. jóge fa jaar euh, Burkina ñëw ñëw Tchad. Mhm. maanaam révolution boobu di commencé xam révolution par les idées la. d' abord. gis tey ji changement boo xamante ne jeunesse baa ngi koy aspirer di xëcc changement boobu. mooy dañu bëggoon la woon woon ni la fi doon nekk tey jii muy dictature bu bu bu flagrante bu taxaw li fi doon nekk tey jii muy jaay doole li fi nekk muy gabegie li fi nekkoon muy tey jii malversation financière tibb alal réew mi injustice mais loolu moo waral tey jii ay ndaw ñu bëri ñàkk seen bakken loolu loo waral tey jii ñu bëri ñu jël leen dugal leen ci kaso bi loolu moo waral tey jii ñu bëri tey jii ay dislocation familiale am fi Sénégal réeróo bi ngay wax tey ji entre journaliste ak leneen ak leneen ñu dem banaan journaliste du pouvoir et de l'opposition mhm. am Sénégal mhm. mais loolu nag tey jii dafa am njëg njëg loolu tey jii nag mooy lii buñ ci jógee dafa war a am changement te gis nga keroog dama gis Ousmane Sonko di wax Ousmane Sonko c'est un homme politique benn bémol laa gis muy erreur mm. mooy bi mu waxee ne ministre de la justice daf ko envoyé vidéo bi loolu laa gis ne erreur la te nit la nit mën naa def erreur. Mhm. mais nag aussi ñun bu defee erreur dañ naa ne dafa def erreur. mais aussi man dama ko interpréter ci beneen façon. Mhm. Euh, Abdoulaye Mbow. tey jii ministre de la justice. Mhm. mën na informer Ousmane Sonko. ne ko kii kat sa militant moo def nangam. je fais mon travail. parce aussi loolu mën na nekk Abdoulaye Mbow moo ma fal mais falu ma pour moom daf ma fal parce que. pour justice pour askanu Sénégal. ñu ne rupture ma gis ab ñooñu Abdoulaye boobu def nangam hmm? ma ne ko envoyé ko vidéo bi ne ko Abdoulaye boobu de mais de grave sa sa kii sa ñooñ la te damay def sama liggéey mu ne ma defal sa liggéey mën nañ ko interpréter ci côté boobu parce que jàpp naa ne Ousmane Sonko fi ñu jaar yëpp tey jii mais euh, waruñu xalaat sax tey jii di dugal la main de l'exécutif sur le judiciaire loolu mënul nekk kon côté boobu mën nañu ko aborder noonu te il a soulevé beaucoup de points. mais ñenn ci ci points yooyu am na ci ñenn ci presse bi ñu ne euh, daf leen menacé. waaw mais xam nga xam nga xam nga xam nga bàyyi leen sàcc rek sàcc jóg di wax loolu aussi c'est pas <laughs> normal. nga ne bàyyi leen sàcc sàcc baaxul. Hmm. ñu xëy ñu ku nekk naan mais lu tax mu naan ma sàcc. ko moom xar gi mbaay bu mais c'est c'est c'est grave quand même. Mm-hmm. bu kenn sàcc sàcc baaxul Ousmane Sonko tey ji bu denoo seen sàcc baaxul mais duñ fi nangu kenn kenn sàcc. lu tax presse bi xëy rek commencé wax ñun la ñuy waxal nangam sànga y a une certaine presse nag boo xamante ne ñëpp gis nañu ko mais Pastef dafa defoon erreur monumentale bu garaaw. Hmm. mooy dañu déserter les plateaux benn instant bàyyi chroniqueurs yi toog di wax léegi nag l'opposition actuelle dafa saisir occasion boobu opportunité boobu ñoom aussi ñëw ci plateau yi di di wax lu leen neex. Hmm. erreur boobu lañ lañ lañ jëkkoon def ñoom. mais sans aucune portée ah. absolument sans aucune portée mais loolu erreur la woon ñoom ñu ñoom ñu falu rek euh, dégager plateau yi euh, gisatoo leen ci benn ñu taxaw ñu taxaw défendre seen bopp. Mm-hmm. Ousmane Sonko c'est un homme politique te man dama am lu ma jàpp ci ci ci ci discours bi. mooy mm. rupture bi. Mm-hmm. quand Ousmane Sonko wax sénégalais yi public bi kenn moomu leen de bu mu ne dañ ko baale xam nga public lu ñu wax baale wuñu mm-hmm. Ousmane Sonko li mu wax dama ci am beneen jàngat que amnistie bii day tëb. l'amnistie bi a tëb ñëpp xam nañ ne l'amnistie Pastef n'était pas preneur les prisonniers n'étaient pas preneurs ma pour le président Macky li fi xew yëpp tey jii ñu bëgg ko maasaale Ousmane Sonko boo wax ne ñii nga xamante ne dañ cee faatu yoon dana def liggéeyam ça veut dire que amnistie bi dafay tëb. Mhm. d'accord teg foofu sa baaraam. nga baal ma ma daaneel ma ma daaneel ci benn. damay bañ nga romb point boobu waaw d'accord. d'accord muy lu am solo ci amnistie bi nee na dafay tëb. tey juridiquement bu ñu naree tëbal amnistie bi est-ce que doo am ay conséquences ci waa Pastef. bon bu fekkente ne tëbal nañ amnistie bi du mën a ñàkk conséquence ci waa Pastef. Mhm. pour la bonne et simple raison que xam nga loi d'amnistie bi. Mhm. dafa amoon aussi une une conséquence positive. mooy lan permettre na en tout cas la dissolution bi.